كمالنا وقدامي أن ترى في شاكر لا سقل سوى يا من قيل وليك وحكيم يا غير منزل اليوري ما غبدا صبري ربي يوصف في فكري بك بخير التهام يا خير ذكر قد جمع خير العلوم وقامع ليعيد ومنع مني أذى توهمي أنت سبيلي والذي بقد مات المحرائز مكيسي بالملهم حتى سبيلي والانيس لي قطفا والماقيس بقد مات المحرائز مكيسي بالملهم أضحى ما ساق قلبي فما حابريكني مفلحا للمنزل المفهم بك سألت مالكي كوني أنا وصالكي ودنجي سابناسكي لمن جلا والمفاني وأيا قوت للنبي في أبدنا بالحب سلام المقرب بلا انتهان والمقتل sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu kilifa nga àndal di jaaral nuyu bi sëñ Abo Sall mi sa xarit bii nga xam ne moom nga àndal nga ñëw ci ku tedd gi Cheikh Mountakha moom recevoir leen waxtaan ak yéen nga bég lool ci yoon wi sëñ Abo wax na ma ci lu bari ñu ñëw fii nag indi leen fii ci borobu Cheikhul Xadim bi xam ne seen maam Cheikh Omar ci gàttal ñëw na fi ci niñ ko nettalee teewluwuma euh, du ma teewlu lépp nag waaye dikk na fi ba bëggal maam Mor Anta Sali xamal ko ne ko am na ko tedd kuy ñëw jamono koo xam ne kii ci yow la ko yàlla jaarale nañ ci sant yàlla bu baax euh, kooku nag ka muy tudd euh, keneen la koo xam ne kii du doon man mooy Cheikh Ahmad Bamba moom Bamba moom mi ñuy wax ca Saloum dañoo xam ne woon lañ ko jox aw turam moom ginnaaw Maam Mor Anta Sali ci biir loolu nag dégg naa ci nettali yi ñu ne ca la wo ca la waxee Cheikhu euh, sëñ bu soobe sëñ bu soobe mooy mii na jaay ku ki xamal ko ne ko yow sab taaw bu juddoo nag ma ko tudde Cheikh Omar wax ko ne ko sab bu dikkee mm. nag ma ko tudde mm. mooy sëñ Cheikhu bu soobe mooy magi sëñ Mbàkke mm. moomee Cheikh Omar lañ ko daa wax Omar sax boo gisee Omar ji loolu moo ko indi Cheikh Omar lañ ko daan mu lañ ca daan waaw mu nga wax ak eh, daal xese yu yéeme yoo xam ne daal fekk nañ ko bu baax muy noonu loo xam ne lii boole boole woon na bokk gi démb eh, ñu bokk lu ñu jublu bokk lu ñu bëgg bokk fu ñu jëm kon nag bu ngeen fi dikkee seral ngeen xolub kilifa yi ndax lépp lu bokk ci taal lu bokk ci mbàkke ak musóobe seen xol sedd na ci ñëw gi ngeen ñëw ba fii ci seexul xadim joxe fi seenu siyaare siyaare bi ñoo ngi rafet njort bu baax ci ne sëñ Tuubaa dana ko nangu ndax da ngeen a jógee ci kaw fi nekkal am ndigal ci moom war a ñëw fii ñu yóbbu leen ñu yóbbu ko mu sës ci ku tedd gi kon nag rafet nañ jot ci ne ñaan yëpp dana nangu na yàlla nangu ñaan yëpp yal na yàlla barkal seenu yoon ci dem ak dikk te def jàmm te def ko ci njaboot gi def ko ci réew mi def ko ci àdduna bépp. mu ngi wax si taatu turu Lamine xalifa bi ci Ramadan Tall mu ne cant ak ngërëm ñeel na borom bi. ñu ngi lay ne Seydi Bousso. ñu ngi lay ne Seydi Bousso ñu ngi lay ne ca Golléré ne Seydi Bousso ci mboolemi Fuuta ñu ngi lay ne Seydi Bousso ci alamul islam gépp ne doon nga ngir nekk imaam loolu da nga say maam te loolu tamit li nga fekk la moo tax kilifa yi jël la jiital la si bërëbu tedd bi yow tamit jërëjëf. bi ñu ñëwee léegi ca xalifa ba ci sëriñ Muntaqa si biiri waxam. mu ne am na si guddi gi tey. te li mu seet seetantal ko. ne si guddi yu gën a marqué yu gën a rëy si guddi yi nga xamante ne yi ko marqué tey si xalifa bi dikk si moom di Ceerno Madani Muntaqa ak mboolem xadara ji si weeru Cheikh mar di weer bi di weeru baraxlu moo tax Ceerno Madani tànn bis bi di bis yi mu ñëw fii si bërëbu tedd bi mu ziyaara xalifa bi nga xamante ne haaliyan moo fi nekk Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu ci ramadaani moom ne moom tamit lii guddi gi ak ngoon gi dina ko puugéroo ba ilaa yawmi diini yow am nga lu rëy Seydi Bousso da nga bàyyi say yitte nga ñëw nga daal tijji nga yóbbu ko ba si kanamu Seyxul Xadim radiyallahu taala anhu ne tolluwaay Seyxul Xadim ni mu xamee Cheikh Umarul Fuuti moom tamit bég na kontaan na fi mu nekk ne sabab nag loolu lu jafe la nga nekk ak ñu baax waaw saa yu ne di gis ay màndarga am li nga am lii rek moo la may nekk ak ñu baax kii alaji Abu Sall mi e, e ne wu cofeelam si jullit yëpp e ne cofeelam tamit si Seex al ki nga xamante ne mooy jokkuwaayam cofeelam si mboolem Seexul Xadiim gépp cofeelam tamit si mboolem njabootu Cheikh Umar rawatina xalifa bu tedd bu taxaw nii sa bu tedd bi Ceerno Madani loolu moo ko may alaji Abou moo ko may teraanga ju mel nii waaye ñëw imaam bu toll nii daal di tijji nga téye si loxo gu tedd kii moomam mboolem njaboot ji mu àndal ba si kanamu Seyxal Xadiim ne loolu yombal yu Abou Sall su fekkente mus nga ko tawkom ni sa njaboot góor ak jigéen non loolu de bariwul li la ko may tey nga nekk ak ñu baax ñi ne am nga euh, màndarga misaal ne xaju ñi nga xamante ne waa asxaabul kaafi li ñu amoon si teraanga ñu daal di topp si ñu baax ba kalbu asxaabul kaafi seen xaj suñu borom tudd leen ci biir alquran te ñëpp xam nañu xaj képp ku ñu ne yo xaj nga da am metital da ngay xeex te xaj jooje woo xam tudd nañ ko si biir alquranul karim e ndax lan moo may lu teraanga jooji xaj jooje ndax nekk ñu baax yow tamit Abu Sall lii ko mérité nga lu feeñ si lu gis général Mouhamadul Moustapha Tall mu ngi nii. si mag waa ahbaab Cheikh Oumar Fuuti ca la bokk suñu wër ay kër nga jël kër janga moom nga daal di ko jël jébbal leen ko teg ko seen loxo si loxo xalifa bi di Thierno Madel na si wàcce ay ganam ñu ñëw si ziar Cheikh Oumar ziar Cheikh Oumar ñu ñëw ziar Thierno Seydou Nour Cheikh Oumar ñu ñëw ziar waa Thierno Muntaga Ahmad Muntaga Cheikh Oumar yow tamit sa diggante ak Thierno Madane tey ne lii nekk lu lu pulaar ne romet li des nag bi fii àla illiyin ma annabiyin amin te Cheikh Oumar ak Cheikh Al Khadim mu ne loolu loolu mooy diine mooy lislaam ɗum ene ne loolu bokk na si lu ñuy tuddee ajjana umm. koɗo garɗo gandi ñëw ganju ñëw bu soxla dara te mu nekk lu ku loof ku lotto lool umm. e mu daal di tasek soxna ji umm, moom soxna maam jaaro busa mu ne no Cheikh Umar lan nga soxla mu ne ko lama soxla mooy ndox man naan si ma jàpp siwaat fépp fu maam jaaro bu so mun i mun a ndox indi ko ala indil na ko Cheikh Umar ne sirru bu suñu borom jël daxañ ko si biir ne sirru joojee mooy lislaam mooy jaamu yàlla mooy dundu doomi aadama um, mu ne suñu borom nee na jël naa ndox lépp luy dund si kaw suuf jël naa ndox mu nekk loole te munoo jaamu borom bi fekk ndox dikkul foog ñu indi ndox ñu daal di ko waajal ne su duggee àjjana waa tàbbi fa tàbbi si ngërmalu borom bi li mu fay fekki mooy ndox moo loolu moo nekk diggante Mawlaana Cheikh Umar ak way juru Seyxul Xadim di Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala ne dund lislaam aljanna ñu jàng faati ak salaat al faati amin amin